mouvement m mu ngi sant sénégalais yépp yi nekk ci biir réew mi comme yi nekk ci bitim réew ci seen taxaw waaye tamit seen ak jàmbaar goo xamante ni wone nañu ko pour aar li nga xamante ni mooy suñu démocratie euh, askanu Sénégal yëpp woneeti na ak njàmbaaram ci xeex bépp nooteel boo xamante nii dañ leen ko bëgg a teg ak bépp bu muy mën a doon ci xeex boobu jigéen ñi ak ndaw ñi suñu ci benn yoon gannaaw ñu leen di fësal suñu euh, ak kontaante ci li nga xamante ne nii wane nañu ko ci semaine yi nga xamante ni moom lañu gën rawatina ci weeru mars 2021 loolu day wone rek fi nga xamante ne nii état de droit ak yenn ci acquis démocratique yi nga xamante ni Sénégal boobu ak léegi jot na ko am fi nga xamante ni tollu na fi askan wi pour kenn bañ ko bañ ko laal kenn bañ ko naax saayal waaye tamit du ñu noppi di bàyyi suñu xel ci ñi nga xamante ni nii dañu génnoon àdduna ñu boomoon leen ci événement yi nga xamante ni moom moo passé te naam ñu génnoon di manifester li nga xamante ni mooy seen ay difficulté waaye tamit seen naqar bi nga xamante ni seen charte réew moom moo leen ko may ñuy bokk tamit naqar wii nga xamante ne nii képp koo xamante ni am nga ci ay blessé yaa ngi ko am m di ko bokk ak yow di manifester aussi suñu solidarité ak bépp sénégalais waaye tamit ak bépp këru liggéeyukaay boo xamante ne nii yàlla dafa dogaloon ñu nga am ci ay yàqule suñu kilifa diine yi ci ni ñu leen xamee ci seen ak yi ñaan ci seen dox jàmm ci seen taawu réew taawu réew mi ci bépp situation boo xamante nii daf ci nekk m di gën a fësal waaye tamit di yeesal kóoluteem ak yaakaaram ci seen ci seen taxawaay m muy gën yeesal muy gëna yeesal yaakaaram waaye tamit di gën a fëdli kóllëreem ci digganteem ak kër diine yooyu ci wàll woowu xam ngeen ne le khalife général des mourides envoyé woon na ay émissaires yu ñëw gis m au passage ñu koy ñaanal yàlla gën ko dolli fanu gudd ak wér di ko sant bu baax a baax a baax ci tànk yi nga xamante ni ak jéego yi nga xamante ni def na ko ba mbir mi mën a am ak dal waaye ci jamono yooyu askanu Sénégal mu ngi wéy di naqarlu di ñaawlu ay kàddu yuy tukkee ci ñent ñi nga xamante ni ñoo ŋànk nguur gi nguuru makisal di kàddu yoo xamante ni kàddu yu ñàkk teggin kàddu yoo xamante ni day gàkkal ak tilimal bépp jéego boo xamante ni le xalif général moom ko doon def pour ak dal ak jàmm ci biir réew mi waaye ñu ciy nemeeku rek ci seen seen kàddu yooyu ñu yëkkati rawatina semaine bi nga xamante ni moom lañu génn ay ñu ànd ak Macky ñoo xamante ni amuñu benn worma ci xalif général des murit ci tànk yi nga xamante ni moom moo koy dox waaye tamit muy mel ni dañuy wane ne discours bi nga xamante ni président Macky moom moo ngi ko doon def na ko pour wo nit ñi si jam muy melni discours bobu ñu ngi wone ne Macky Sall gëmul sax limu doon wax wa ila ñom ñu ne Macky Sall li ngay wax teguñu la fenn li nga wax aussi teguñu ko teguñu ko fenn duñu ko jëfé lolu nak dafa jar sénégalais yépp mëna xam mëna xam lolu ñi wax ne nak ci kanamu askan bo xamanteni dafa jog taxaw

Sénégal li nga xamante ni moom moo nekk ndëgër laayam mooy saafoo diggante ay xeet saafoo diggante ay ay ay ay ay loolu moo nekk la force de notre de notre nation boo jëlee ci boj siin ba boj kajoor penku ba sowu li nga xamante ni moom moo tax jàmm doon am Sénégal saafante boobu ci diggante ay xeet loolu moom moo ko waral kon donc bu ñu ñëwee di bëgg a porox ndallu ci ay kii ci biir xeet la bokk kii ci biir dëkk la bokk kii ci bii waaso la bokk kii ci biir diine la bokk loolu askan wi taxaw na tem du du du du fi amee te Macky Sall ginnaaw bu mu continuer di dëgër bopp ci dëgër bopp gi nga xamante ni wax na ko di ko jëfee mooy fexe ba opposition bi mu naax saayal réduire l'opposition à sa plus simple expression di continuer aussi liste bi nga xamante ni pour liquider ay adversaires. Dougal na Sénégal ci koñ bo xamante ni.

Aïssata Tall Sall Abdou Karim ñoom ñépp ñu nekk ay ministre de la République ak ay yenn ci taskatu xibaar ñoom aussi taamu nañu dugg ci taaruxu senegaal ci ni mu gën a ni mu gën a

fitna boo xamante ne nii gënul ci gënul ci réew mi te boobu ak léegi ñu ànd ak ak dal ànd ak ak taalibe waaye aussi ànd ak ndigal li nga xamante ni moom la sëñ bi sëñ bi santaane sëñ bi joxe waaye ñoom muy mel ni lii nga xamante ni moom la sëñ bi santaane ñaan ko di ko dox teguñu ko fenn wormaaluñu ko te aussi amul benn benn benn wegg boo xamante ni wegg nañu ko jëmale ko suñu kilifa diine yi waaye tamit mënuñu toog te ñu benn yoon ci ay sénégalais yoo xamante ni état de droit ñu koy manifester ci mbedd mi kilifa yi ngànk nguur gi ñooñu ñu leen di accuser ay terror ay terroristes ay salafistes ay rebelles ba sax ay forces obscures du ñu aussi naqar mën a ñàkk a naqarlu bu baax a baax baax état wu Sénégal di jàppale li ñuy tuddee ay mercenaires ñoo xamante ni ay bindkat mu leen di. def loo liggéey boo xamante ni liggéey bu doya doy doya doy waar la pour que jàmm ji nga xamante ni senegal am na ko ku jàmm jooju ñu mën ko ñu mën ko naax saayal jaare ko ci waaso yi ci diine yi ci ay xeet waaye gannaaw bu mu sàkke ay pexe yu bare bare bare bëri digganteem ak m 2 te pexe yooyu yépp naax saay Macky Sall li nga xamante ni moom moo ko desee mooy di xoq talaate waaye mu xam ne lii nga xamante ne nii moom boobu bi mu fi toogee ak léegi moom rek la réussir mooy que ne fexe na ba placer Sénégal ci réew mi nga xamante ni moom la moom lañuy moom lañuy wax walla fexe ba. gàngamle am réewam comme réew moo xamante nii réewu terroriste la réew moo xamante nii dem fa sax wóoratul ndax tuuma yi nga xamante ni moo koy jël di ko teg ci aw askanam li nga xamante ne nii moom moo soxal wàllu exigence yi nga xamante ni moom la ñu waxoon fësalan ko ci suñu mémorandum ba jox ko ndaw xalif général des Mourides M2D mu constater mu constater que ne lolou lepp len rek la ci Macky Sall def te sax defagul lepp moy bàyyi ñi nga xamante ñom ñoom ñoo nekkoon les prisonniers les détenus et prisonniers politiques té sax gul ñëpp yeneen yi nga des ni moom ci desoon yëpp amagul lenn loo xamante Macky Sall defagul na ci aussi pour mu pour mu leer. M2D nee na nga xamante ni moom moo soxal élection locale M2D ne accepter menam d'organiser... organiser ay élections ci sa bu ko sobé ci numu ko nexé ak ci ci ci M2D aussi day day dakk te report yi nga xamante ni koy japp diko reporter diko reporter élection yi té lolu lepp am lu laxasu ci gannaaw lolu day te ñuy wo askan wi ñu taxaw pour samanté ak li nga xamanteni moy suñu calendrier électoral M2D di dàq ci bu baax a baax a ba report yi nga xamanteni mom lañu nar té aussi diko bëgg proposer wayé M2D mo ngi rafetlu bu baax a baax askanu Sénégal ci seen ak dal ci seen dignité ñu mën a jàkkarloo ak ñii nga xamante ne nii ñoom ñooy bëgg a yee fitna ci nguur gi te féetewuñu fenn fu ci régime mu Macky ñuy kañ aussi askanu Sénégal ci dal googu nga xamante ni am nañu ko ba mën a taxaw temm jàkkaarloo ak ñooñu parce que valeur yi nga xamante ne nii mooy sos suñu cosaan ak suñu aada di dëgëral aussi suñu suñu diine moo tax ba senegal mën na jéggi ay difficulté yu bëree bëree bëree bëree bëree ba sax mu mën ko yóbbu ëllëg ci libération suñu réew nekk ci war a nekk ci ak defaraat dafa war a nekk réew moo xamante ni du réew mu ñuy xar ñaar ci waaso ci diine wala ci wala ci walla ci aada wala sax ci en boo xamante ni ñoo koy ñoo koy def jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy soldaaru démocratie ci dañuy exiger aussi dañuy exiger dëgg bi nga xamante ni mu feeñ ci boom yi nga xamante ni boom nañu ko fi ay nit waaye tamit salfaañe ak ak yelleefu doomu aadama yi nga xamante def nañ ko fi jamono yi passé situation bi nga ni la ci ci réew mi depuis semaine yi M2D mobilisé la commission commission judiciaire jëm euh, exiger

di dal ci askanu yi di leen def naka su dul noonu ci ay jëf joo xamante ni jëf ju doya doya doy doy commission judiciaire bi tamit dina tàmbali ab recensement identifier localiser ñi nga xamante ni ñëpp ñoo ci génn àdduna waaye tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci am ay gaañu gaañu ci adresse yi seen njaboot loolu lépp buñu koy def mën a def li nga xamante ni mooy ay plainte individuelle ci juridiction yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci biir réew mi ci Afrique ci bëcc même international bu fekkente ne nii li nga xamante ni moom la ci état war a def te defu ko dina am aussi sous commission salons, xamante ni des salloo de loo des ni jëm ci ak ak ak d'homme doomu li nga xamanteni moy ak ak ñu fi setlu ci juridiction yi c'est pôle d'avocat aussi consulter pour mu saytu waaye tamit teg ci yoon yi nga xamante ne nii tey dina mën a indi ak leeral ci li nga xamante ni moom moo waral ay nit ñàkk ñàkk seen bakkan te ba léegi ba léegi ñi nga xamante ni aussi ñu denc leen ci ci kaso yi te kenn te kenn te te kenn libéré leen m m mu ngi jël acte ci libération bi ñuy libere fii mu toll nii ci ñeenti détenus yi Dakar ak Ziguinchor waaye tamit m mu ngi yëgle opinion nationale ak internationale que fii nga xamante ni moom mooy Diourbel juge ba ñu koy wax Mbow dafa bañ a bàyyi ñaar fukki nit ak ñaar ci ñi nga xamante ni tegg nañu leen loxo sukkandeku ci ay xibaar yuy wax ne ñooñu ñu teg loxo dañu taqee ci saccage yi nga xamante ni moom moo xew ci ci ci ci ci ci tribunal Euh, commission bi nga xamanteni mom mo affaire juridique bi tamit dina def le point ci fan yi nga xamanteni fan yi ñëw wayé li nga xamanteni mom mo soxal di nga famille yi tamit ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoo ci am ay ay blessures ak prisonniers yi m 2 mu ngi yëgle ne ay membre am yi nga xamante ne nii boobu ak léegi ñoo ngi nekk ci wetu ñi ci loru ca ba avènement yi commencé ak léegi mobiliser nañu ñeent quarante six millions trois cent quatre vingt et un mille francs CFA. Lolo di asha ou medikaman, asistan sosyal, prizan saj, ak sen ay ospitalizasyon. Aksyon yoy, depans yoy, nou defekoni, ti linga khamen teni moun moun sohal, nisi am ay ganyou ganyou. Tolounen ti, katkourven de blese, nou nemen koulen, ti Dakar, Géejowaay Pikin, Griffiths, Mour Mbour ak Dans la région où Dakar nous avons 58 blessés ñaar avons nit am ci ay gañu gaañu yu méttee ñu identifier len waaye tamit jël len en charge ci lu tollu ci 10 968 707 francs CFA. nemmeeku nañu aussi ci ñi nga xamante ni dañu blessé ñu ci bëree bëree bëree bëri daanaka ci problème mu bopp dañu ko am maanaam traumatisme crânien ak ay amputation de membre ñàkk ci yenn ci seen ay cër ñu mën ci lim ay ci ñooñu ñaari ndaw kenn ki ñu jël ko en charge ci hôpitalu pikin kenen ki ñu transférer ko biñona pour mu dem ties djel aussi en sage lool lepp à hauteur de 1 million 44 700 francs CFA ak 1 million 373 000 refus 7 blessés yo xamanteni djel nañu len en charge ci lu tollu ci 545 000 francs 38 blessés Yo xamante ci hôpitaux yi bu Grand Le Dantec Principal Nous aussi ñu mobiliser 3 662 235 CFA ñaari blessés aussi jël en charge kenn ki ñu transféré ko Tambacounda keneen ki ñu transféré ko hôpital principal ñom aussi li ñu def ci 000 francs CFA 15 blessés graves ñu recensé ko Bignona jël leen en charge 1 831 118 francs CFA loolu lepp boko totalé M2D mobilisé 17 441 060 francs CFA ci prise en charge 82 blessés Ce li nga xamante c'est mo moo soxal ñi nu ci kasso yi ak assistance famille yi 54 ci ñom jël nañu len jël nañu len en charge ci sen ndëkk yi sen añ sen reer te mu tollu ci 4 millions 940 000 francs CFA.

mënul far ben yoon ñi nga xamante ni ñoo ci ñàkk seen bakkan mënul remplacer ben yoon ki nga xamante ni ñi nga xamante ni ñàkk nañu ci seen ay seen ay cër dañu dafa fekk rek ñu bëgg ñu bëgg a wone ñun ak ñoom ñoo bokk ñun ak ñoom ñoo far te te fu muy mën a ñun ak ñoom ñoo fay ñoo fay mujj loolu moo tax pour bañ leen a fàtte benn yoon ñu nga xamante ni loolu lépp ñu mën ko mobiliser bokkandook ñoom tiis wi bokkandook ñoom naqar wi m 2 nee na du mës sa bàyyi ndaw yi nga xamante ne nii am nañu ay loraange ci manifestation yi nga xamante ni moom la woon gannaaw waaye tamit ñu seetlu di rafetlu di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax le xalif général des mourides ci jëf ju rëy a rëy rëy ji nga xamante ni def na ko depuis que événement yi bi mu xewee ak léegi ak m 2 li nga xamante ni boobu ak léegi moo ko ciy def mu ñëw. indi chèque boo xamante ne nii toll na ci cinquante millions de francs CFA jëbbaloon ko m waaye tamit M2D ne li nga xamante ni moom mooy xaalis bi nañu ko tegaat ci loxo yi nga xamante ni moom mooy loxo émissaires yi nga xamante ni ñu jox leen suñu base de données li nga xamante ni moo nekkoon recencement ñi fi ñi ñi seen bakkan ñi ci loru. ak ñëpp nga xamante ni ñu mën leen a accompagner képp koo xamante ni war nga ci war nga ci jotee nga jote ci sëriñ bi sax bëggul wana lii nga xamante ni def na ko ñu fësal ko ci kaw waaye dafa fekk mu nekk jëf joo xamante ni da di jëf ju mag a mag a mag a mag a mag a mag ci kaw loolu dafa am benn sëriñ bu baax bu doon wax naan ceebu mi tooy na baax bi tooy na lu ci nit di lolu M2D lancé lancé campagne Une campagne de collecte de de de fonds ci ci campagne de collecte de fonds Nous koy commencé... Euh, samedi 27 mars 2000 2021 duppee ko ndàmpaayu askan wi jumtukuwaay yi nga xamante ni moom mooy waral ñuy jot ci participation yi ak modalité yi nga xamante ni sénégalais yi dinañu ko dinañu ko mën a dinañ ci mën a dugg ba fësal si seen yéene dinañu ko dinañu ko fësal comme mu nekk sénégalais yi nga xamante ni dañu nekk ci biir réew mi ak ci diaspora bi jumtuwaay yooyu bokk Wave ak Free Money numéro de téléphone yi nga 76 510 84 76 76 510 84 81 76 510 86 00 Orange Money plus Wave 77 093 07 91 commission ni

Macky Macky Sall ak nguuram boo ko jël rapa rapatrié ko ci contexte ci prétexte boo xamante ne nii képp ku mu bëgg a naax saayal rek moom la lay jiiñ mooy terroriste ñuy wax ne m loolu àndu ci tey àndu ci suba te ni muy taxawe ci xeex injustice da koy taxaw aussi ci ginnaaw Ousmane Tankara pour nguur gi nga xamante ne nii. Tunkara nguur gi nga xamante nii dafa jóg pour naax saayal ko pour néewal ko doole pour sànq ko plan de liquidation boobu bañ a bañ a jàll bañ a jàll parce que nag mënuloo jël ay sénégalais yoo xamante ni seen ñàkk la liggéey dem tukki di indi ci réew mi ay koppar yoo xamante di contribuer ci développement bi ñooñu nga leen di jël non seulement gis nañu sénégalais yi li ñuy daj pour dem bitim réew pour tokki pour daan seen doole nga jëlaat beneen sénégalais bu nekk foofu di contribuer ci développement réewam di wax xalaatam ci doxaliinu réewam nga bokk ko jël indi ko Sénégal pour naax saayal ko pour sànq ko pour liquider ko M2D nee na loolu du ci am tey ci am te lépp loo xamante ni war na ko ci dina ko ci engagé merci. jërëjëf waay jërëjëf